aussi dafa métti franchement di remercier public bi ñu nga xamante ne def nañ déplacement bi. tout voilà souvent ñëpp ñu ne tournoi soo ko organisé d'habitude gars yi dañuy teel a ay coupe du monde coupe d'Afrique dañuy gis ne souvent gars yi dañuy teel a pression boobu dafa nekkoon si ñun FIFA bi tamit gars yi dañu bëri woon fii teew match bi ñëpp xam nañ ne waa dafa am ay boy yu ndaw la ci PNG tamit macha allah tamit ay joueurs to donc moo tax match bi match ñu la woon ñu dem série yàlla def tey ñu gagné quoi donc ñoo ngi remercier tamit ñi nga xamante ne bokkoon nañ ci tournoi bi parce que artistes yëpp ñëw nañ indi seen doole support tamit ñu remercier ñoom Bass Thioune ñoom Aba ah ñoom Sidi Diop. ñoom Jiba ñoom Ngaka Blindé gis nañu façon artiste bu parce que lii yombul quoi benn instant nii nga dajale ay artistes notamment ay mbalaxmaan ay rappeurs ay comédiens souvent foog nga fay pour dem gis leen. tey PNJ permettre na xale yu ndaw yi ñëw gis seen ay fans seen ay idole donc objectif bi loolu la quoi gars yi jàmm sant Sénégal jàmm laa koy ñu mësul gis dina am ay majorette yi nga xamante ne ñëw fecc nice. artistes yi tamit ñi nga xamante ne bokkoon nañ si tournoi bi yëpp dañuy contre comédiens yi donc dañu am match boo xamante ne boo koy démarrer maanaam artistes yi contre comédiens yi ñu ñooy démarrer et puis final bi PNG la contre Doudou quoi. dafa mel ni am ngeen mas équipe bu tuuti bi ñëpp xam nañ ni. mu jàpp kii la. da lay rey loolu noonu ak ak ak ak kii bi. naan la ñu wax ñoom match bu métti match amical quoi. ok mais ñoo hmm. lay doon si ñun quoi si ñoom. Hmm. revanche doon si ñoom quoi. final bi dimanche prochain parce que année scolaire bi day tijji donc dimanche dañuy ñëpp. dina ay parrains yi gars ñëw ci waa on invite tout le monde artistes ñooy njëkk a démarrer et après ñun ñu joué bi quoi. d'accord rafet. macha allah ñëpp a ko rafetlu yaakaar naa. Mm. mais bi nga koy xalaat. yàgg yàgg pii. kan moo ko njëkk xalaat ak bëgg ngeen ko xalaat. parce que dafa garaaw. donc ñoom xam nañ ne pii yi dañu bëgg football. donc am na benn tournoi bu ñu mosoon organisé loo xam ne kenn xalaatu ko woon biir Kennedy lañ ko doon defee Kennedy amul lampe amul dara ñu def fa ay projecteurs. boobu ñoom Mbaye Dieye ñoom Canabaas même Wally Seck sax joué woon ay xaaji guddi donc yàgg na mais bii dañ ko gën innové tamit boole si artistes yi nga xamante ne ñoo xew si jamono souvent tamit am na ay ñu mere parce que dinañ ñoom bokkuñu si quoi donc Ligue des Stars wax bu ñu si def ñëpp dina beneen deuxième édition boo xamante ne nga xamante ne jotuñu woon bokk dinañ participer quoi waaw donc idée bi ay jumeaux leen fii la léeg-léeg kenn ñëw teg ko et puis ñu ànd seeg bi faa bi. mais PNJ fan nga jaar équipe Waly moo nga jaaxal. non Waly nga ni équipe la am. Aliou Seck di ko remercier ñoom dominé nañu match bi yëpp ñun mosuñ dem série tey ñu dem série foog naa dañuy ñàkk sax mais. yàlla décidé est-ce que yëngaloo leen bagages yi aussi tamit parce que. waaw waaw woo naa maire ma ne ko waa Joal Fadiouth ñu ngi la. tey ñu def ko gratuitement donc c' est quelque chose qu' il faut féliciter. allah dañ ko rafetlu Sénégal yëpp a ko rafetlu vraiment parce que li ngeen boole yombul bu njëkk. Euh, Malax Man rappeur daawuñu ñoom guerre la woon. defante tey nga créé loolu ñoo bokk même terrain di football buñ paree saabonte joxante loxo loolu dafa garaaw initiative bi. ban heure ko créé ak ak pii ak kan moo ko gën njëkk a xalaat. yàgg na yàgg na avec lii yëpp lu ko waral mooy relation humaine bu ñu ak artistes mhm. bi ñu ak euh, Euh, tous les artistes muy rappeur bi muy mbalaxmaan parce que PNJ du animateur rappeur kese du animateur mbalaxmaan PNJ bu ñëpp lañ tey PNJ suñu taxawee si télé bi xam ne ñii ay chrétien lañ parce que on est pour les musulmans on est pour les catholiques on est pour tout le monde raison pour laquelle tey artistes yëpp ce sont nos amis mm-hmm. amul non kii mooy suñu partenaire ñu bàyyi kële on est tous une famille on tous des frères on tous des sœurs moo mais am na artistes yoo xamante ne ñëwuñu kenn gis leen fii si kii kii bi lan moo waral loolu aussi. deuxième édition dina am comme ni ma ko waxee début bi rek 16 la woon mënuñu woon invité 22 wala 32 am na ñoo xam ne tamit mere nañ ñu PNJ gisuñu mais ñoom ñëpp dinañ leen gis incha deuxième édition suñu ay frères lañ voilà. merci beaucoup. merci merci à vous One Love. Mm-hmm. jaajëf.